ko bàyyi xel. yéen bi salla alayhi wa sallam. bu demee ba feebaru dee ñëw. bu demee ba feebaru dee ñëw. am na uh, waxtu waxtu bi mu mujjee ñëw ci jàkka ji. mais waxtu bi mu mujjee ñëw ci jàkka ji. dañ koo lëng. dañ koo lëng. bi mu ñëwee. bi mu ñëwee. ne Seydina Ababacar. ne Seydina Ababacar. doxal jiite doxal doxal doxal jiite bi di jiite. di jiite mbooloo. jiite mbooloo la. kon nag. kon nag. loolu lépp. loolu lépp. na ngeen koy bàyyi xel. nañ koy bàyyi xel. di ko sóoraale. di ko sóoraale. ku dem baanaan. ku dem baanaan. xam ne ñaanu mag ñi nangu na. xam ne ñaanu mag ñi nangu na. ndax. ndax. su mu fa jumaa. su fa jumaa. at yu bari. at yu bari. la ngeen ci bëgg. la ngeen ci bëgg. amu leen amagu leen. waaye ba aar ba jotee. waaye ba aar ba jotee. ci sunu borom. ci sunu borom. macha allah macha allah. xool seet na kuy. kon nag. kon nag. nun. ñoo seq yéen. nee ñoom daal ñu seq yéen. mooy ay nawle. mooy ay nawle. diine ci diine. ci lislaam ci lislaam. ak ci ngor ak ci ngor. ak ci makaarimul axlaaq ak ci makaarimul axlaaq. kon nag kon nag. dëkk booba. dëkk booba. ah yàlla tànnal na leen. yàlla tànnal na leen. gën jaarafeeti tànnin gën gi aarafi tànnin gën jaarafeeti tànnin gën jaarafeet ay tànnin te mag ñoo fa jaar te mag ña ñoo fa jaar seen jikko seen jikko ak seen taar ak seen i melo ak seen i melo te mag ñooña te mag ñooña bu ñu yooya jëmm yooya yéen rek lañ koy xool yéen Yuusu Jóob bàyyi gisul boo gisul boo gisee Mamadou Lamine boo gisee Mamadou Lamine gis maar gis maar mbaa nga gis siini mbaa nga gis siini boobaa sa xol day sedd boobaa Baye Baye Baye Daouda Diop noonu. Baye Daouda Diop noonu. Baye Baye Baye Yamar Sarr noonu. Baye Yamar Sarr noonu. Baye Sakho Diagne noonu. Baye Sakho Diagne noonu. kon nag kenn ku ne. kon nag kenn ku ne. am nga luy sa warugar. am nga luy sa warugar. am nga luy sa jom. am nga luy sa jom. loo xam ne. yoo xam ne. moo ne seen diggante. moo nekk seen diggante. loolu ñu di ko bàyyi. mais kon loolu lañ ko bàyyi xel. Euh, waxtaan nag moo jot. nee na waxtaan nag moo jot. ak ñaaxante. ak ñaaxante. ak fàttalante. ak fàttalante. waaye lii ma leen di ñaax. waaye lii ma leen di ñaax. man mii gënu ma leen cee jàmbaare. nee moom mi gën leen cee jàmbaare de. waaye nag li nga xam ne mooy saasu jotaay bi. waaye nag li nga mooy saasu jotaay mooy poye yooyu nga mooy poye yooyu nga mooy suñu poye jariñu. mooy suñu poye jariñu. mooy suñu point xetliku. Euh, mooy suñu point defaru. mooy suñu point defaru. mooy li nga xam ne njaboot gi gën a ñu war a. mooy li nga xam ne seen njaboot gi moom lañ war a xool. boo liggéey ñu tege ci siraatal mu tàqima. boo liggéey ñu tege ci siraatal mu tàqima. loola il faut. loola il faut. ñu fàttalante ko. ñu fàttalante ko. njaboot gi di suñu yaakaar. njaboot gi di suñu yaakaar. ëllëg ëllëg. ñu xool ci. ñu xool ci boo liggéey ñu mën cee jaar jotaay bi jotaay bi jomb nañ jomb nañ doxee nenn noo xam ne di ko waxee nenn noo xam ne bu fi jógee bu fi jógee suñu borom jéppi suñu borom jéppi bu seen xel gàttoo. nee bu seen xel bu xel gàttoo daal. mbaa ñu ñeme yàlla. mbaa ñu ñeme yàlla. dañ leen di wax wax joo xam ne. dañ leen di wax wax joo xam ne. dañ leen di xaar xaati ko naan àjjana. dañ leen di xaati ko naan àjjana. waaye bu boobaa. waaye nag su boobaa nag. laabire gi day def. laabire gi day def. ko bëggee dimbale. nit yoonu jëriñu. yoon wi yoonu jëriñu. boo ci boo ci jaaree. bu ngeen jàkkaarloo. bu ngeen jàkkaarloo. da nga koy fàttali. da nga koy fàttali. wax ca xutba ba. lu doomu aadama yi. nee na doomu aadama yi. doomu aadama bi. doomu aadama bi. nee na am xel. bi am xel. mu ngi ci ñaari tiitaange. mu ngi ci ñaari tiitaange. dund naa juróom fukki at. dund naa juróom fukki at. naa ñeent fukki wala dund naa ñeent fukki at. lii ma jaamoon yàlla. lii ma jaamoon yàlla. xawma nangu na ko. xawma nangu na ko. xawma nangu ko. lii ma desi sama. lii ma desi sama àdduna. li ma war a jaamu yàlla. li ma nar a jaamu yàlla. xawma yàlla dina ko nangu. du ko nangu xaw ma du ko nangu xutba ba xutba ba ca xutba Ceneba ca aadama nee doomu aadama ñaari niwa yii la taxaw ñaari niwa yii la taxaw kon nag kon nag laxasaayu gi dafa laxasaayu benn yoon du doy benn yoon waaye xeeb sore naag sore naag foofu nee kon nag kon nag dañ leen sant rek sëñ bi nee na ngeen sant rek yàlla jox na leen mag ñu baax. yàlla jox na leen mag ñu baax. jox na leen sëriñ su baax. jox na leen sëriñ su baax. am na nag bokk na ci. nee na ah moom nag ma bokk ci. waaw noonu leen ni siiw. moom daal nee na ni moom lim ne siiw. sunu taalibe ñu nangul ñu ko. ak taalibeem daal ñu nangul ko ko. xam nga ku matum sëriñ. nee xam jëmm ja nga xam ne. jëmm ja nga xam ne. bu bu waa baanaan masaa ñëw fii àllarba. bu waa baanaan masaa ñëw fii àllarba. mu ni leen mu ni leen. mu ne leen. ku fi jiit fett wala jaan matt la fi. ku fi jiit fett mbaa jaan matt la fi. mbaa nga dem sa kër fekk fa loolu nag. mbaa nga dem sa kër fekk fa loolu nag xëy. wutil beneen sëriñ matuma def sëriñ. wutuma def sëriñ wutil beneen sëriñ man matuma def sëriñ. kooku moo matul sëriñ. kooku moo mat ab sëriñ. kooku mooy kan. kooku mooy kan. boobu nag parce que ba mu nekk. ña doon faj góomba. amee nga leen àq. amee na sama diggante. waaye loolu am na seen digganteem ak yéen. kon nag kon nag. séddoo bu ngeen ma séddoo. séddoo kon séddoo bi ar moom ko séddoo. yaakaar naa ne séddoo naa leen ceeb bu. moom ne mooy moom yaakaar naa ne séddoo na leen seen séddu bu ceeb kon moom. kon bi yàlla yàlla. ànd bi yàlla yàlla yàggal. ah ñoo ngi góorgóorlu. ne am dal gi xel. di am dal gi xel. sàkk wu ñu jëpp wu mais mag ñi di amuñu sikki sàkk ji jëpp dina jëpp wu leen. amuñu sikki sàkk ne mag ñi jëpp wu amuñu sikki ah, sàkk ci ne mag ñi jëpp wu loolu sañ nañ cee ah, sañ nañ sañ nañ koo wax leer. nee loolu moom sañ na wax wax bu leer nañ ñi. sañ nañ cee dogu it. nee sañ nañ cee dogu it am nañ ci firnde it. ndax loolu. doy na sëkk. doy na sëkk. ndëgër laay. ndëgër laay. doy na sëkk. doy kon kon. sëñ Ibrahima Seck bu baax ma. sëñ Ibrahima Ibrahima Seck bu baax ma. nee na. nee na du may sama taalibe. du may sama taalibe. jaaral ne. jaaral ne ma jaar ne ñu daje. bu ma teg sama tànk dama naan la bu ma teg sama tànk bu ma teggee. teg sa tànk bañ ànd dugg kon loolu kon loolu mooy àndu mag ñi mooy àndu mag ñi mooy jikko seen jikko mooy seen jikko mooy seen doxalin mooy la mel seen pas-pas noonu la mel seen la mel noonu la la am benn wujj te waruñoo roy wala ku mag ñi dul nag kon nag kon nag loolu ngeen di xel loolu ñu bàyyi xel teraanga gi ñëw fi teew fi bu xoolante bëti yërmande bu xoolante bëti yërmande bañ tey ak tey léemaam waaye nag yokkute rek yokkute rek moo ci am aaju yu faju rek aaju yu faju rek moo ci am ah, dajeeg mbooloo mi dajeeg mbooloo mi xoolante bëti yërmande xoolante bëti yërmande yàlla mën na cee def xeetlu ko yàlla mën na cee def xeetlu ko biir xeetlu ko gune xeetlu ku nekk ñaan gu nangu gune ñaan gu nangu gune mën na cee am mën na cee am ba ci daaw jéeg ba ci daaw jéeg dañ bañ fay bay baxaw bañ fay bay baxaw jamono ji maral a maral ba nga xam ne jamono ji maral ba nga xam ne ñi doon bay daanaka kenn ku ne da ngay pënd bi. ñi doon bay yëpp kenn ku ne da pënd bi. gàncax gi lax lool. gàncax gi lax lool. ñu liggéey ba wàcc. ñu liggéey ba wàcc. sëñ Mor seen dëkkandoo. sëñ Mor waa sëñ bi maa ngi ñibbi. ne ko si ah sëñ bi maa ngi ñibbi. mu ko fanaanal. mu ne ko fanaanal. mu ne suba damay ji allah damay ji gerte. mu ne ko ah yow de yaa ma gën a dëgër bi. mu ne ko ah yow de yaa a dëgër mu da foo ko teg. mu ne ma tool bi buñ ko bayee yàlla taw. mu ne ko tool bi buñ ko bayee yàlla taw. lii laa waxante ak sëñ Mori. mais lii la waxante ak sëñ Mori. ñu xëy suba teel. ñu xëy suba teel. ndékki ndékki. asamaan si daal di ñuul kurum. asamaan si daal di ñuul kurum. daal di indi ngelaw lu sedd. daal di indi ngelaw lu sedd guy. ah waaye ba 10 heures daal daa jot. waaye ba 10 heures daal daa jot. lépp ay dex la. lépp ay dex la. loola di mandarga. loola di am mandarga. loo xëy. loo loo xam ne. dañ koo dund. dañ koo dund. loo xam ne. loo xam ne. nga doon wàññi. nga doon wàññi. doo xam ñaata yoon. doo xam ñaata yoon la. doo yàlla defal. doo xam yàlla defal. defal goo xam ne. defal goo xam ne. bu dajee fii. bu dajee fii. boole di bëti boole di bëti yërmande. ñàkk ci tool bi ñàkk ci tool bi. yàlla defal ko yàlla defal ko yàlla defal ko. lanu ko yàlla defal. lanu ko yàlla defal rek. mënees yu góor yi mënees yu góor yi mënees yu góor yi. kon kon. place bi mu koy defee. place bi mu koy defee. te lépp da la ñaanu mag. te lépp da la ñaanu mag. yàlla ci seen fàggu téef. yàlla ci seen fàggu nangu jëf dellu jën nangu bu leen suñu borom dellu ci nangu bu leen borom nangul jéego bu ngeen seqi jéego bu ngeen seqi ñëw fi ñëw fi sa ngeen a beesal seen yaakaar sa ngeen a beesal seen yaakaar waaye sa ngeen a dogu ni lépp lu ngeen ñaan waaye sa ngeen a dogu ni lépp lu ngeen ñaan lépp ñaan lépp ngeen fi ñaan incha allah incha allah yàlla dana ko nangu yàlla dana ko nangu du doon du eh, du ci man du ci moom de ci yéen du ci yéen waaye ci man waaye ci man yàlla nag ñun moom ñeen moom daal ab gardien rek ab gardien rek lañu bu ñàkk solo bu ñàkk solo waaye nag gardien bu doylu waaye nag gardien bu doylu bu wóolu borom bu wóolu borom boromam. bu gëm alxuraan bu gëm alxuraan. bu doyloo alxuraan doyloo alxuraan. boo xam ne. boo xam ne. muñ na lépp. muñ na lépp. féeteeg yàlla féeteeg yàlla. kon yàlla yàlla doon ñu. yàlla kon yàlla yàlla doon ñu sutura. doon ñu jàmm doon ñu jàmm. doon ñu xetliku doon ñu xetliku. doon ñu faju aajo doon ñu faju aajo. mbir mu jub gën a bitti. yàlla lépp yomb yàlla lépp yomb. lépp yemb yàlla lépp yemb. lépp yolam yàlla lépp yolam. lépp teew lépp teew. lépp jigéen lépp jigéen. yàlla bu nu dara jafe. yàlla bu nu dara jafe. yàlla bu ñu dara jaaxal. ci kàttanu yàlla. daal yonent bi. parce que mag ñu baax la. yàlla suñu borom indi ñu ndox moo xam ne. Eh, ndax ndox rek moo mën a. ndax ndox rek moo mën a. tooyal xol yi tooyal xol yi. xol yi. ndox dong ko mën a tooyal. ndox rek ko mën a tooyal. moo xam ne day day bare bare bare ba dégg yi taar. ndox moo xam ne day bare bare ba dégg yi taar. loolu fi doon moo mën a suuxat xol yi. loolu moo mën a suuxat xol yi. lu dul loolu fi mu ne nii. mënut a suuxat xol yi. kon nag. barke mag mi yàlla sama borom indil lu ko yàlla sama borom indil lu ko dama sedd guy dama sedd guy leen domm barkeel lool noo ngi sant ñëpp nee sëñ mi ngi sant ñëpp noo ngi gërëm nee mi ngi nee mi ngi jaajëfal ñëpp nee sëñ Mori ma fa nekk di rakkam ñu bokk deret nee ñu ah, ngi leen koy dénk mu ne ñooy moom. mooy ñun mooy moom. te day liggéey nag. te day liggéey nag. ndax ñoo na fii. ndax ñoo na fii. def fi ñetti at. def fi ñetti at. jàngu bi. jàngu bi. jàngu bu alxuraan bi. jàngu bu alxuraan bi. mu téye mu téye ko ci loxoom. mu téye ko ci loxoom. téyel ñu ko. téyel ñu ko. ba mu mat ñetti at yu mat. ba mu mat ñetti at yu mat sëkk. bu ñëwee baanaan. bu ñëwee baanaan. ah sama ndigal. nee na ndigalam. la fa ñëwee la fa ñëwee. Ah, waaye nag gën a xam ne. waaye gën a xam ne. jig na baanaan. ji nga baanaan. jig na waa baanaan jig na waa baanaan. waaye waa baanaan it. waaw waaye waa baanaan it. jig nañ jig nañ ko. jig nañ ko. baax na ci lool. baax na ci lool. lool lool lool. kon nag loolu lépp. kon nag loolu la ndam la. ndam la. faju aajo la faju aajo la. xel mu dal la xel mu dal la. yaakaar ju doy la yaakaar ju doy la. dooleeku la yaakaar ju dooleeku. incha allah incha allah. bone la bone la. waaye bu ngeen ci jàppee. waaye bu ngeen ci jàppee. bu ngeen xoolee gisu leen seex ca. bu ngeen xoolee gisu leen bàyyi seex ca la waaw dana mat seex ci ndaw dana mat booba dana mat seex ci ndaw gore na gore na te doyo diwul te doyo diwul nag bëgg na diineem bëgg na diineem fonk na lislaam fonk na lislaamam fonk na ngorom fonk na ngorom fonk na kilifteef fonk na kilifteef kon kon loola seen cër la loola seen cër la ngeen doon jaa jàpp ngeen doon jaa jàpp xam ni te xam ne mag ñi mag ñi mag ñi leen séddaloon mag ñi leen séddaloon fàttewuñ leen fàttewuñ leen te lépp te loolu yokkute la lépp yokkute la waaye nag lépp it waaye lépp nag defaru la ak defaru la jëm ci kanam jëm ci kanam kon lu fa lu fa war a am rek. léegi lépp lu war a am ñi ñaan nañ ko mag ñi ñaan nañ ko. ba ngeen teg seen bët ba ngeen teg seen bët. la des nag. nee na ca des nag mooy gàncax boo ko yoree. mooy gàncax boo ko yoree. da koy xam ni nga koy xam ni nga koy seeree. ba man caa ba man caa jëriñ. boo ko xamul. boo ko xamul. mën nga ah, am perte. mën nga am perte. ñàkk caa jëriñ ñàkk caa jëriñ. kon kon ah, mag ñi mag ñi. Ah, amuñu seen fay. amuñu seen fay. la war lépp. la war lépp. lépp lu jamono laaj. lépp lu jamono laaj. bu jotee. bu jotee. incha allah da ngeen ko am incha allah da ngeen ko am. kon nag kon nag. góorgóor rek moo ci des. góorgóor rek moo des. defal leen jàmm. yàlla na yàlla defal leen jàmm. defal leen sutura. defal leen sutura. defal leen fajug aajo. defal leen xel mu dal. nee jamono daa xat. nee jamono dafa xat. nee ñu tàllal loxo yi. ñu mm, tàllal ko sunu borom. ñu tàllal sunu borom. muy toroxlu ci kanamam. muy toroxlu ci wàcc bu baax. wàcc bu baax. ñaan ko. ñaan ko li mu bëgg. jàmm mu am jàmm. mu am jàmm. bi gunge nawet bi. ba mu àgg fa mu jëm. yal na yàlla ko. kon yi. kon kon nag mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni bi loolu lañ leen jëlee loon fee ci Thiamène ci ziar bi nga xamante ni waa Banal ñoo koy amal am na yàlla sàkk bu ñu tabaskee ba ci ginaaw suba sa euh, ñu dem ziare ji Serigne Abdou Aziz Seck mi nga xamante ne bii euh, bokk na si ñi nga xamante ne bii sampu mag ñi la ndax ku nekk xam nga ni cabe démb ku ko xamoon démb xam ko tey xam ne nag am na changement bu baax a baax am na yokkute bu baax a baax lépp loo xamante ne bii mën na am cabe ñàkkoon na ko démb tey nañ ne yëpp am nañ ko te yi si des itam ñepp am nañ ci yaakar que lepp dina ñew ndax nañ ñi mom yaakar na ni dañu euh, samp sante ko ma mooma taala sekk goor gu mag mo moo dekk bi fa nga xamanteni modi di cene ba gossas ka fa nek tay moy suñu wajur euh, di domam di baye asan sekk mom mo fa nek ak ay domam ki nga xamanteni modi moo di taala sekk nek khalifa Bay Sada ak ay rakkam eh, ñoo fa nek ñoom itam eh, yor ndono ba nga xamanteni mom la mag ñu yoron liggey ba nga xamanteni mom la mag ñu euh serigne Cene ba Baye sëriñ Abdourahim sek nga xamanteni bi fepp way mëna nek tay ci kaw suuf ta nekkal fi serigne Cene ba ci ndigalam nga fa nekkee yalla yalla gëna euh seral toogaayam way yalla yalla gën ko defal ndam ci liggey bi mom mi nga xamanteni bi ku nekk xam nga discours am bi mu njëkk daf ginnaaw bi nga xamante ni bii tey lii di seesu sëriñ Jëne Maam Amady Ndaak Seck toog na ci muy wut naa mboot fa seen a boot ñëpp te loolu la digal njaboot gi yëpp waaye tamit di ñu fàtte ñaanalaat bu baax suñu sëriñ ba bay Cheikh ne Tidiane Seck waaye tamit ñi nga xamante ni bi toogoon nañ ci seesu sëriñ Jëne ba ñëpp commencé ko ci maam taala Seck ba ci bay Cheikh ne Tidiane Seck ñu leen ñëpp ñu leen ñaanal bu ko defee rek mbokk yi loolu mooy Jëne ba lii daal mooy bés bi nga xamante ni bii moom la waa Banaan doon amal tey fële ci Kébé Seck demoon siyaare ji Serigne Abdou Aziz Seck borom jajju ba yàlla dafa duggoon ci bismillahi rahmaani rahim yeggale nañ ko ak alhamdulilahi rabbil alamin dem nañ ci jàmm ñëw nañ ci jàmm yàlla nañ ko yàgg fekkee àndoon ko ak Shamsu TV télé Serigne Thiénaba Amary Ndack Seck noonu lañ ko àndee woon baaw yàlla daf itam noonu lañ ko àndee ren yàlla nañ ko ànd weer yi di woon bu ko defee rek di joxoon di dig daje incha allah déwén ak jàmm waaye itam di leen joxaat dig daje si yeneen programme yi nga xamante ne bii ñoo nekk suñu kanam di programme diine islam yàlla na yàlla defal ñu jàmm di ñaanalaat bu baax sëriñ Thiénaba Baye sëriñ Abdou Rahim yàlla na yàlla yàggal ko ci kanamu xadara bi noonu la ñuy koy ñaanalee xale bu jënd loolu yëpp. belendam nyandi tarlem nyandi ila Super Negative Bird. That's another lesson نازل أقلها نازل أقلها والذي إلى ذلك المنتقم انتقم بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين لا إله leen faté abonné ci sen sen yu samsu TV jant bi leral aduna e activer cloche de notification boobee nabiyul huda fi na mihi wanti baahihi alwa alba allahu akbar Mam ahmadou ndak moy sunu serigne yalla nu jox moy sunu njariñ nañ ko jàpp gem. ko